ni non ñu ngi ñu ngi jéem tolérance zéro moo war a am ci tali yi tolérance zéro moo war a am ci oto yi tolérance zéro moo war a am ci bu ñuy xool euh, di saytu ci fu ñuy fu mel ni euh, visit technique ci oto yi war a jàll ak yi warul jàll mais euh, accident ala mën mën maanaam mënta ñàkk làmmiñ sax day def accident dañ koy wax accident mënta ñàkk mais mën nañu ko wàññi ci kaw ñu teg ay ay mbir yoo xamee ni euh, fagaru moo gën faju dina xaw a am lu mu wàññi ci mbirum ay accident xam nga oto boo xamee ni da nga ñëw ñu ne la frein yi jàppul mu saaraan dem mais accident bi démb nii mais c'est man dama yaakaar ne ñaari accident la parce que oto bi la mu njëkk a mbëkk ca taxi ci suufu passerelle foire bi la am ñu faatu ñoo xamee ne ñu ngi en face impôt domaine ou foire ça veut au moins lu tolloog cinquante ba soixante mètres ñu ne la oto bi maanaam da doon dem di saaraan di yóbbaale di rajaxe ba ay nit ñu ne la naan frein yi jàppul d'abord daw bi ça veut dire daw bi bari na ci yoon boo xamee ni ku xam yoonu foire xam ne amul heure bu mu dul am embouteillage ça veut dire que te pourtant am na ay gendarmes yu fay taxaw di réguler la circulation pour par exemple ñiy génnee foire Ouest Foire par exemple bañ a dugg euh, ci bretelle bu mag bi ndax priorité la ñuy jox ñi nga xame ne ñoom ñooy jëm booru Dakar comme aller retour wala ñuy jëm ci booru VDN bi oto bi daw na lu ko neex dal ci ay nit d'abord dañuy massawu ñi nga xamee ni ñoom ñoo ci am ay gaañu gaañu di jaale ñi ci faatu ñaan suñu borom mu xare leen àjjana gis nga. ku war a dee da dee fa nga taxaw ngay taxaw dee fekk la fa la preuve ji nekkoon ci moto Jakarta taxaw di xaar pour mën a départ oto bi ñëw fekk leen fa ñu fa ñu nekk euh, euh, tànc ñi euh, faat ñi yàq ñi ñu ne non léegi bon après journaux yi xoolal même journaux yi je le la dernière fois ay benn wala ñaari journaux ñoo ci wax ca veut dire que dañu dem ba dañoo banaliser la mort ci ay mbirum accident au Sénégal xam nga tax ñu banaliser ko. parce que y en presque chaque jour. loxo yi da ngay ñëw di ko wax chaque jour. tàmm ko. da ngay dem ba jël ko teg ko na ne. jinax bu rombee da nga naan benn jinax a ngi nii. beneen bu rombee da naan beneen a ngi nii. loolu moo xew ci journaux yi ba accident bu amee benn dañ naan am na accident bu beneen amee ñu ne beneen ak beneen am na yeneen am na yeneen am na dem ba jël ko dootuñu ko sax teg à la une parce que. émotion amatul ci loolu mais tolérance zéro bi ma doon wax euh, que les autorités prennent leurs responsabilités waxoon nañ fi dañuy dindi car ne ni buñ ko dindee dañ ko remplacer ak régulier euh, nu ñu koy ndànk-ndànk bus tata tata yi moo raw car moo raw camion moo raw leneen si je le dis pas pour pour tous les chauffeurs de tata wala yenn auto tata yi tax ñu ñuy déglu. mais am na tata yoo xamee ni jiit leen ak ñoom ci tali bi ñoom da leen di moytu ndax ni ñuy dawee nga gis chauffeur bi moom maanaam même li oto di am sax soxlaatu ko oto pourtant dafa am euh, boo bëggee dafa am feu de signalisation nga bëgg signaler gauche pour jàdd gauche signaler tuñu loxo la ñuy génne demal ci tali bi nga jiital ak tata wala oto loxo la ñuy génnee dugal seen bopp pour wan la ni ñu ñoo la gën a gudd ñoo la gën a mag yow mi yore oto bu ndaw da ngay xaar man maa la ëpp doole maa la mën donc amul ala da may bàyyi ma jàll loxo lañ lay génneel doot ñu lay génn doot ñu def signalisation pour wan la ni dama bëgg a jàdd gauche wala droite seen loxo la ñuy génn ba pare dugal seen bopp di la won ni quel que soit alpha tu vas leen di bàyyi ñu ñu dem mais loolu dañ ko war a réguler gis nga yëpp yi fi tegoon ci ay programme ay projet on enlève les les les cars rapides pour teg fi ay tata on sa si pour teg fi nangam mais fan la mujjee France cars rapides yi ñoom duñu fi jeex moom moom changé wul amul lenn lu ci changé cars yi sax léegi ñoo gën mën dawal gën a rafet dawal que bus tata yi. loolu tax dégg toog accident wu car rapide. bariwul yàlla. ma de gëj naa dégg accident wu car rapide gë gëj naa ko dégg de. accident wu tata chaque jour nga dégg ko camion chaque jour nga dégg ko mais xoolal kamion yi ni ñuy dawee xoolal camion yi ni ñuy dawee da ngay ñëw ci benn bretelle bu ndaw nga gis camion boo xamee la muy daw ëpp na 60 kilomètres à l'heure ñu waxoon ñu sax di jaayu jamono doot ñu bàyyite camion yi di jàll yenn heures yi daa am heure boo xamee ni ci la ñuy génn demal ci mbedd mi tey jarul ngay sori da ngay taxaw ci sa buntu kër. nga wàññi camion yi romb wàññi bus tata yi romb xool nañuy dawee da nga naan mais finalement ngeen baal ma le je m'en foutisme est érigé en règle au Sénégal mais ça nag lenn moo ko mën a dindi tolérance zéro mais sur toute la ligne. Ah, tey mu soxal accident yi gis nañ image yi démb mais malheureusement euh, tey boo xëyee si yenn yi benn wala ñaar rek euh, ñoo si xëy il est temps quand kon li ñuy wax chaque jour parce que mesure.